ma jóg mbaaco ma taar ba rey sutu la jor jóob bi bàyyi maam jaara waa foo jëm jullit ji aljuma yow mal juma loo may ñaanal hmm? maa yow kese waa yow kese kese kese kese kese kese kese papa man ak yow kese kese maa ngi seetal benn vidéo waa ji ni ko waa ji jabar ji ne ko yàlla boo yàlla boo takk keneen neel amin waaye un un la un yàlla boo takk keneen un um. da ngaa wax waaw rek. non on